daanaka jafe na lool ngir camion yi nga xamante ne ñoom ñooy indi soble si di dugg ci parc soble bi nekk foofe ci marché bu caaro yi loolu nag moo waraloon commerçant yi nga xamante ne ñoo nekk ci bërëb bi di wone ab nakaru xol ba tax na ñu daa di fësal seeni jafe-jafe yi nga xamante ne yooyu lañuy ñuy dund ci bërëb bi rawatina ci nawet biile. caméra bi tey bu ñu demee ndox mi ci bunt bi foofu da ngay fay fekk lu mat 4 5 yoo xamante ne dañuy taxaw foofu te buñ te ñooñu. bu ñuy wàcc seen bagage ci biir poto poto bi lay nekk marché bi ñu ngi koy defar defar bi ñu koy defar ñaari yoon ñetti yoon ba ñeenti yoon la woon léegi ñett yoon yëpp tëj nañ leen benn yoon mooy dox benn yoon yooyu oto yooyu fi la ñuy duggee fi génne léegi ça veut dire que ni kon conteneur bu ñu duggee un deux trois ba quatre conteneur bu ñu taxawee foofu léegi bagage yi bu doon ñëw à cent mètres cent cinquante mètres léegi ñi koy wàccee manœuvre bi main d'œuvre bi ngay fay boo doon fay vingt deux mille vingt trois mille vingt quatre mille tu es obligé biñ ñëwee revendiquer loolu ni duñu fay dañu dañu bëgg a ni léegi dootuñu fayati juuti ñu waxtaan ñu waxtaan ak ñoom ni leen délégué bi ni leen léegi pour nga ni doo fay juuti dafa am yoon woo xam ne danga nga koy jaar préavis de grève jaar police jaar euh, gendarmerie dem fële ci euh, mairie bi déclaré ko sous préfecture. mais nag jafe-jafe yi dafa bëri ndax lii mi ngi commencé avant ñu màggal dañoo commencé marché bi ñu tëj porte bi. man am naa am naa kone yoo xam na trois sources dégg am naa trois trois kone yoo xam ne am na trois jours ci kaw tali bi léegi kone yooyu am trois jours bi ñu ko wàccee ñu am problème ñu coow dem mairie mairie jox leen ni leen lëndi bu ngeen màggalee bala ngeen ñëw ngeen fekk ma dindi porte loolu la waxoon ñëpp di ko dégg ñu ñëw wax ma ko gars yi coow fii duuti ñëw coow ma ni leen li ngeen wax bu dee dëgg man cinquante mille la ngi ñii ñaari kone yi war a ma fay leen ñoom commerçant yii lee li ñu bëgg rek moo di autorité locale yi ñu bàyyi bunt yi nga xamante ne daanaka dañ ko bloqué ba tax na benn camion mënatul dugg ci marché bi lee. yëpp dañ ko gis bu ñu paree bu la neexee mu ngi nii moins de cent mètres. moins de cent mètres foofu noonu foofu noonu man am naa ay tool damay liggéey ci affaire canalisation affaire bi mën nañ koo gis problème bu bu kii bu problème bu grave bu ko la ko wanee bu ñu tiiree taux bi 3 mètres 4 loo xamante ni day jëriñ ñëpp. benn nit taxaw bëgg bëgg bëgg leen a yeew ñoom ñëpp benn buum ne loolu yoon yoon nangu ko. moo di ñu ubbi buntu bi oto yi même bu ñu ubbee benn bii comme dañuy liggéey ne dañuy liggéey vent bi bu liggéey porte bi oto yi génn di jàll bu dugg bu bii bu demee mar a dem beneen topp ci ginnaaw beneen ginnaaw ba oto yi jeex loolu mën nañ ko dégg bu ko ñu dindi salte bii fii ma la nit waaye oto mën fay jaar ci wàllum économie bi ñoom commercant yi di xamle it ñu ngi ñàkk xaalis bu takkoo takkoo loolee dara waralu ko lu dul jafe-jafe yi nga xamante ne yooyu la ñu jànkonte ci marché bii lee économiquement économiquement économique kenn du ci gis boppam parce que fi ñu toll nii kii nii bu amee client boo xamante ni da ko laaj Ziguinchor trois cent sacs quatre cent sacs fi ñu toll nii ñu waroon ko ko livrer en moins de vingt quatre heures mais mën na nekk camion bi bu ñëwee ci buntu ba lay jëkk am problème am na camion yu taxaw foofu yoo xamante ne nii ñu nga war a wàcc fii te mënuñoo ñëw mais loolu kay impact économique bi foofu la commencé. ay produits périssables la. ah bien sûr bien sûr. parce que gis nga am na ci yoo xamante ne bii fi mu toll nii mais légume la kay légume kay xam nga ni mënul durer benn durée bi. defatuñ ko mu di marché képp ku fi liggéey fi nii daanaka liggéey too xoolal xoolal marché bi mu ne amul bagage amul doxul sareet du amuñu kuñ jaay marché baa ngi nii kenn mu amul koo jaay amul nag ku la ni benn agent marché na fi nag benn agent bu fi dugg amul ñi fiy liggéey ñëpp amul koo xam ne nga taxaw ci mbedd mi xool jafe-jafe naka noone ci nawet biile daanaka dugg ci marché bu Caaroy rawatina ci parc soble bi loolee ay jafe-jafe kese lañ ciy jànkoonteel te moo ne de dara waral ko lu dul ndoxu taw bi nga xamante ne wàcc na ci bërëb bi mu nekk situation bi nga xamante ne mu ngi leen di jural ay gàllankoor rawatina ñu ciy ñàkk xaalis bu bëree bëree.